ma jàkkaat ak lay bayit maam jaara sa jëf ju rëy ji ku ko xam sag waayaara ma jàkkaat ak lay bayit maam jaara soxna jaara bu soo tagga dëgg lay béyit mam jaara jëf ju rëy ji ku ko xam sag waara soxna jaara buso ku ko xam ma jaara bu soo ma dëgg dëgg lay béyit mam jaara sa jëf ju rëy ji ku ko xam jara kañ cay bàkk te yaayoo tagg mu ab gàkk tey bàkk te yaayoo tagg mu ab gàkk na jaara yaa jara way yaa jara kañ cay bàkk mu ab gàkk tey bàkk taayoo alarba fukki fan ak ñetti ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom demook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jëtal ñu nuyu beeg siyaar bi sahibul fadila cheikh mouhamadinil muntaxa di ñaan suñu borom defal ko kullu cheyin muntaxa noo ngi nuyoo ko am di amdi mudu mbend fall xalifatu maam cheikh ibrahima fall yàlla na suñu borom yàggal ab taxawaayam te wéral ko ñoo ngi am mbégte ak si dëkk wu sell di Poroxaan fekk si fii ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu di waa daairatu nooru daaray ni ñu fi amal ay liggéey yu ama am solo depuis ba ñuy waajal màggal gi ba bisu màggal gi tey ak ëllëgu màggal gi incha allahu taala mu mel ni ñi ngi taxaw ak kenn si jëwriñ di daaira bi di Serigne Thierno Tine daañu ko dékk suñu micro mu ñëw ak ñun ci liggéey wu am solo bi nga xam ne amal nañ ko fi mu ci pare itam ñenn ci soxna yi ku ci mel ne suñu yaay soxna Wali Ñang ñu yaay soxna sa Samb ak soxna Mbaye Dieng bokk si organisatrice yu mag yi ñoom it daañu leen dénk suñu micro ñu wax ak ñun ci waajtaayu màggal gi ak bésu màggal gi tey nañ ko programme kon dañuy jox kàddu gi rek sëñ Thierno nuyu ko mu nuyu waa daayira bi bu ko defee ñu tàmbali waxtaan wi. Euh, ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam santaat sunu yaakaar tey ëllëg euh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, di siyaare kuy dégg sunu kàddu waaye nag di jëlee ci nuyoo ak siyaar bi xalifatul xam bi tarixatil muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér njabootu Serigne Touba gépp waaye di ko ñaanal bu baax jëruñam ja Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima gépp waaye di siyaare mbooleem daayiratu nur Daayni bi yëpp mbooleem membre yëpp ñu ngi leen di siyaare di leen baal wàq te di leen siyaare bu baax di leen delloo jégalu di siyaare bu baax sëriñ Habibu ak mboolem ñi nga àndal ñëpp ñëw fii tey ci Poroxaan ji yeneen xam ne liggéey bi daal nii rek lañ ko commencé ànd ko sunu yaay yi nga xam ni ñoo bokk nekk ci daayira bi ñoom ñëpp ñu bindu ci daayira Nuuru Daarayni ñu ñëw fi tey teew fi nag ci ndigalal président sëriñ Goumba Ndiaye mi nga xam ne moo jiite mboolem daayira bi yëpp nga xam ne ci kàddoom ci la ñuy waxee ci ndigalam ci la ñuy waxee ci ndigalam tamit ci la ñëwee fii ànd ak ñun sunu yaay yi nga xam ne mooy Poroxaan ji bii nag doon ñetteelu at boo xamante ni ànd nañ ko ak ñoom waaye ànd bi wax dëgg yàlla ñu ngi ci am tawféex bu baax a baax ndax lépp loo xamante nii jëf nañ ko ci poroxaan ji ak lépp loo xam def nañ ko ci poroxaan ji moo xam wàllum berne la moo xam lépp lu mën doon suñu borom mi ñu koy jàppandal ba nga xam ne nañ ko bëggee noonu lañ ko amee waaye nag loolu dañ ci santaat Serigne Touba bu baax santaat yàlla bu baax nga xam ne Serigne Touba képp ku koy liggéeyal na nga xam ne amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am tey liggéey gi ñu koy liggéeyal nañu xam ne moo ñu sàkk def ñu ñu doon ay cantaakun di ko liggéeyal ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam boo bu mu tànnee ay xeetam tànn ñi nga xam ne ay jullit la nga xam ne jullit yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ñoom ñëpp dinañ tàbbi àjjana waaye Serigne Touba mi nga xam ne mooy liggéeykatu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñëw tànn ak njabootam daan ne képp koo leen gis ngeen xam ne jubluuma da ngeen xam ne kooku dafa nar a texee di xaraba kullu man shaqaawa ila shiwaaya wala ya tilaawa kon koo leen gis mu jublam rek kooku dafa nar a texee waaye nag da ni sama tukki bii may tukki nga xam ne mooy lii nga ma daj sama tukki bi sunu jëmm yi rek moo tax ma daj ko ak liggéey yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam Euh, kon loolu ñun ñëpp war nañ caa mën a sax gëm ko xam ne ñun dañoo dañoo doon tànn fi Serigne Touba nga xam ne lim daj ak lum lim lim daj ci àdduna ak dundam dara warulu ko loolu suñ jëmm yi waan akoonu saafihan li xaw mi waan akoonu xaadiman fii daw mi ñaari yi képp moo tax mu doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te benn bi kat ba muy laata génn Sénégal xam ne ne moom mii mooy liggéey ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalla ma ni rahmaanu fi shafina bi ànd nil xaddi musil madina nee la ma sunu borom xamale ne man mii maay kiy liggéey yonent bi sallallahu taala alayhi wa kon la ca des nag mooy waanaa kon saafihan li xaw mi waanaa kon xaadima waanaa kon saafihan xaw mi ne mooy ràmm sama xeet yomal am kon moom programme na liggéey na unité bi liggéey boo xam ne waa këram képp ñoo ci war a jariñu kon sëñ Abibu lii rek moo tax ñuy sonnal sëñ bi ak di ko liggéeyal bu baax. nekk Touba di liggéey wala daayira la boo xam ne bu ñu jub Poroxaan rek la ci moom daayira la bopp boo xamante ni bis bi yàlla sàkk mi ngi ci liggéeyal Serigne Touba lii rek dafa doon lenn loo xamante nii ci liggéeyam Serigne Touba la ndax ka tax ñuy liggéeyal muy soxna jaaratu leex yi nga xam ni mooy waajuru Serigne Touba mi nga xam ne moom la ñu liggéeyal lii lenn la ci bisam boo xamante ni fas nañ yéenee teew du ci ànd ak sunu yaay yi waaye daari bi moom dafa nekk daari boo xam ne bis bi yàlla sàkk mi ngi ci liggéeyub Serigne Touba lépp lu Serigne Touba woote daari nu daari ma ngi ci biir waxtu wu ne ñu ngi xool ak jëf loo xam ne heure suñ ko jëfee rek Serigne Touba dana ci am ndam bu ñu gisee dana ci kontaan loolu daari bi doxee. daari bi mi ngi nekk tuubaa Touba Daaru daan kàcc bu naan Kër Kabal nga xam ne daayira bi bu ñu ko mujjee saytu góor ñi ñu ngi toll ci ay cent et quelques personnes ñaar fukki euh, cent yi moom teg na bu dee jigéen tamit deux cent yi li ko manqué bariwut mboolem koñ ba ñu dëkk ak mboolem gox ba ñu dëkk ñu ci ëpp bind na ci daayira bi di chaque àjjuma ñuy teew di jàng alxuraanu karim kaani lu bis bi yàlla sàkk dinañ ko jàng daayiratu Nuuru Daani Nuuru Daani gi ñu duppee tamit bis bi yàlla sàkk àjjuma bu jot danañ ci jàng ab lim def ko àddee Serigne Touba. Euh, kañ ngeen ñëw ci màggal seen seen waaw màggal gi day ñëw nañ bëkki démb korok talaata la sunu yaay jiitu si euh, ku ne xam ne ni poroxaan dafa xaw a metti lool lépp looy def rek da nga koy indaale waaye bëkki démb ba tey dara manqué wu fi bu nu xëyee bi ñu ñëwee ci ngoon gi togg nañ ay xéwal ay reer xéwlu bu baax a baax bi nu xëyee suba tamit dafa mel ne sax démb loon màggal gi bi nu xëyee defar ay ndékk yu am solo. waaye nag togg añ boo xamante ni sunu janq ji nga xam ne ñoom ñoo fi ne doon ay tuutànk daanaka yaay dañoo toog ne ñoo fi togg añ bu am solo ñu la ci bu baax a baax a baax bi nu waxtu reer jot tamit toggaat nañ reer boo xamit ni ay ginaar yu ñu ñoñ la roof ko ba am solo nga xam ni suñu soxna yi ñoo ko defar defar bu mucc ayib boo xam ni ci leen jàpp Euh, reet ci rey bu am solo bi ñu xëy suba tey di bisu magal gi nag lépp lu ñu indaale ak lépp lu ñu jaayante woon ak lépp loo xam ne dencoon nañ ko rek tey ji lañ ko génn lépp fas yéene koo def ay xéewal suñu mbokk tali bi yëpp xéewalu ci amul xaaj amul seen noonu ko Cheikh Béthio daan defee rek amul xaaj amul seen waaw cant gi moom dañ ciy jiital rek sunu yaay yi nga xam ni ñoom ñooñu ñoo ñooñu taxawu ndax peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya ñii kat dañoo yéene lu baax ndax mën naa ni ban juddoo ba tey bii mooy ñett at ñu ànd ko ak ñoom te daan nañ dem feneen di fa màggali waaye dëkk gun dëkk ci yéen nañu lu baax xam ne soxna jaara képp ku ko liggéey rek mi ngi mel ne liggéey nga Sëñ Tuubaa ndax mooy waajuram moo tax ñu sopp ñu woo ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ñu fas yéene ko ànd ak ñoom nga xam ne boobu ak léegi bu bundu xataluñu xeebuñu xeebuñu sunu dërëm xeebuñu sunu ñaar dërëm xeebuñu tamit suñuy xalaat donte suñuy yaay lañu waaye lépp lu ñu wax nañ ci loolu lañ fas yéenee jaar xam ne ñu ngi leen di sant di leen bàyyi leen fi suñu borom guddal seen fan wéréel seeri yi nga xam ni ñu ngi tey jël bëgg a fas yéene jël bi ngeen dem ba doo leen mën a génn seen ci màggat ñoom ñii ñu leen ñëwal di leen teewal lépp li ñu fi def ñu defal leen ko ci barkeb alxuraanu karim ndax yéneen leen leen ko wax dëgg yàlla ban jëmee dim ba tey wallaahi la xasim dañoo mel ni ay morom lañu ñoom suñu yaay wali ñang ak ak soxna Mbaye ñoom ñëpp dañoo mel ay morom la ñuy kaf di ree nga xam ne ñii seen xol dara nekku ci liggéey suñu Tuubaa rek moo ñu boole ndax ñooñu mag foofu doon suñu yaay waaye wàcc seen bopp di liggéey di ànd di liggéey ak ñun xeebuñu suñu xalaat benn yoon su ne dañuy def nangam ñu ne lii la ñuy def ñoom i fan wéral seen ne ñëw nañ wala su leen ñeen dema dema dem ba liggéey bi ñun ñëpp nañ ci jàpp xam ne Porokhane ñun ñëpp ñoo ko moom te ñun ñu ñëpp ay tuutànk lañ gis na liñ fi daj tey ci wàllum financement dañoo financé financé ba nga xam ni desetul dara te loolu lépp koom maye kon nag ab julit surtout am murit war a nangoo joxe xam ne daayira bi nekkul fi kenn nekkul fi ma sàmm nekkul fi ma ba lépp loo fi def boo dikkee da nga ci teg sa bët danga lekk da nga naan danga nga tëdd fu nooy kon loolu moo taxoon ñuy woote di laaj ay addee kon ay dinañ ci gën a góorgóorlu bu baax ba ci toppaat ñuy roy soxna jaaratullaahi nga xam ne ñun ñi ñëpp disante bi moo ñu xaw a lor ñi ko disee ñu disee soxna jaar moo ñu xaw a lor ndax dañ ko jàppee maire te soxna jaar du maire man ñu ne soxna wala ñëng mi sax a nu mu nga àdduna 33 ans yi xam ne keroog ba muy dem ci kër borom këram lam njëkk a laaj mooy ba jox am mokkal na alxuraan te sunu jamonoy léegi koy maye danaa la am na xaalis wala am ko loolu war a roy nga xam ne ban ku njëkkee wax dañ lay joxe gërëm dañ leen ba xam kan may jox mokkal na alxuraan lu karim nga xam ne ka ko ka ko jël si woon kooku wujjëm la moo ne moo moo dem ab aaw moo dem wuti ab ñaar boppam te léegi koo ci takkal ñaareel sax mu bëgg a xar tànk tubéyam ngir takkale ak loola kon loola nañ roy ci soxna jaara ci ak ci ak ci ak bëgg ci ak bëgg lu baax ak jaamu yàlla nga xam ne sëy jaamu yàlla la kon loolu rek doy na sëkk jurut ay fan jurut seen jurut xaaj jurut dara nañ sëy te yàlla tax kon nañ ko rey soxna jaaratullaahi mu ñëw na kër maam aral sa liggéey fi liggéey ba am solo daane la yàlla wax ci alxuraan ne wàlliw amutut waaye bu bu ko dinaa jur wàlliw ci kaw suuf mu indi Serigne Touba mi nga xam ne mooy ngën gi mi def ci ko suuf kon loolu ab roy la kon ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di balaax ñëpp xam naa ni euh, sunu vice président si alaaji ka xam naa ni mën naa jege si ni bu soxna Wali Njang kii rek ne moom moom moo fi nekkal président bu soxna Wali Njang daan la ay kàddum rek mu daa di numtu daal di suuf ay kàddum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di leen ziare di am mbégte ak contentement ci programme bi ni mu demee nii ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di yital ci nuyoo bi nag sëñ Muntaxa yàgg fi te wér ak mboolem julit sant taalibe yëpp di leen gërëm di gërëm waa daayira bi nag ñëpp nooru daayira nag ñëpp di tàmbalee nuyoo bi ci turu soxna Awa Diop mi nga xam ne moo yëkkati daayira bi yor ko ca ba mu ñetti nit ba egg si fii mu toll ñoo koy sant bu baax di ko gërëm ren dafa mënta ñëw yabal ñu ñu ñëwal ko waaye lépp lu war ci daayira bi moo ngi koy def di ñu taxaw di ñu lijjanti di ñu ànd koog mag ñi yaa awa ñag mi tey taxaw fi magal ñu ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dimbale ñu li ñu sëmb yàlla nañ ko eggale yàlla nañu yàlla jàppale ba daayira bi jëm ca kaw ca kanam ñu ngi ciy woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ne am nga yëg-yëgu liggéeyal soxna jaara rek ñun pare nañ pour dugal ci suñu biir ànd ak yow di liggéey liggéey soxna jaara dong moo ñu ñor moo ñu indi poroxaan ñoo ngi sant di gërëm te yokkute rek nag lañ ci jëlee at mu jot luñ fi indi ren bu déwénee ñu indi fi lu ko ëpp ñoo ngi sant ñëpp di leen ñaanal di ñaanal sëñ Abibu sama doom ju baax ji nga xamante ne moo ñu fekk ba ci sunu waañ wi di ñu sagal yal na ko sunu borom sagal teral ko eggale ko fu mu bëgg a àgg ci barke Cheikhul Khadim. maanaam santaal yàlla bu baax julli ci Yonent di sant Serigne Touba bu baax di sant mbokki talib yi ni àndal yëpp ñëw ci bis bi di sant sama jëwriñ man aw talib bi doxee rek laa ci Yonent bi sama jëwriñ ci liggéey bi jël lépp teg ko sama loxo may doxal ànd suñu yaay ñu baax ñi nga xam ne maanaam fekk si soxna Fatou mi ak sëñ Jaw nga xam ne ñoom ñoo ñu dal ci kër gi di leen sant baax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ak taysiir ci barkeb soxna jaara di santal waa daara ji yëpp ñu gën a jàpp te xam ne liggéey bi nii dong la lii képp la maanaam di ñaan mu gën a yokk baax a baax a baax ci barkeb Sëriñ Tuubaa ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp leen baalu àq baax tey baalu àq ñëpp te xam ne jiite moo métti moo métti trop trop trop trop billaahi damay dox dox ba xam ne maanaam dañ may mujj yërëm sax yàlla xam ne waaye lépp liggéey Sëriñ Tuubaa rek di santaan ñëpp di gërëm ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu. asalaamaaleykum maa ngi nuy ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu jëwriñ yi fi nekk di jiital ci nuyoo bi suñu jëwriñ Serigne Goumba Ndiaye ma ñoo bàyyi fee ca Touba nga xam ne reen dafa am gànt moo tax ñëwul màggal gi nag moom macha allah dañ ko daan defee rek ca kaw ca kanam tey la gën a yokk bu subaa tamit lay rawati mhm. jàpp rek taw bàyyi ndax ñun bëgguñu lu dul roy ci na jaara waaw incha allah loolu de la ñu bëgg bés bi moom chaque jour ñuy bëgg muy taaru di gën di rafet ngir nit ñi nit ñi di gën a mën a am xel mu dal ngir man di man di ñëw di bokk comme ñun moo waral ñu def otes yu taaru yii nii bokk ko wane ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg ni suñu yére yi nu roowee noonu la suñu xol yi àndee wallaahi bokk bëgg soxna jaara gi ñu bokk bëgg soxna jaara nag moo waral ñuy àndandoo toujours chaque année ñu ciy àndandoo di ci dox di laaj ay teg ngir ay berne ñëw fii nii ci Poroxaan ngir sante ko soxna jaar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daara bi na wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ñoo ngi ñuy teete di ngi sant suñu jëwrin Gumba Njaay ndax moo ngi ñuy teete duñu awale si yoon bu baax depuis bi ñu nekk tuut tànk ba léegi bu ñu awale si yoon bu baax même bu ñu mu sax dañuy fekk fekk di fa ak yet yëkkati ñu ñu jug leen dem daayira kooku ñu ngi sant bu baax moom sant ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi nii rek la